di wax ne projet bi ay sénégalais ñoo ko defar ay ndaw loolu dafa am importance dem nañu visiter PCC bi fële ci gàddaay bi ñu demee li ñu fa gis wax dëgg yàlla jàpp nañ ne euh, lu bees la ci tunnu Afrique mais surtout personnel bi ñu fa fekk c'est un personnel très jeune mais surtout avec plus de 40 pour cent téeméer yoo jël ñeen fukki yi ay jigéen lañu te la ma fa gis mooy ña jiite ñëpp moo xam chef d'équipe yeeg chef de carré ay jigéen lañ loolu dafa am solo te war nañ ko gën a yokk ba sax xëy na am 60 pour cent de femmes du démagogie parce que tamit ak dëgg yàlla euh, monde bi foofu la dem gis ngeen jigéen ñi léegi ni ñu mel ci wàllum njàng mi ak xarala yi ñu ci am ba pare nekkatul léegi de métiers yoo xam ne dañ koy réserver góor kese ndax nee nañu ma ñi ngi former ay conductrices ñi ngi ciy recruter donc pour en tout cas am benn genre balance. loolu c' est important def nañu trajet bi gis nañu ni ñu ko aménagé gis nañu aménagement yi nga xam ne tamit fi ñu jaar def nañ ko fa ça c' est important euh, bi ñu yegsee fii tamit gis ngeen ko lu jëm ci wàllum tarif yi wax na ko sànq euh, yaakaar naa ne juróom-ñett fukk ak téeméer euh, lu xel mën a nangu la waaye dañuy wax ne 16 pour cent téeméer boo jël fukk yeeg juróom-benn dañ leen a defal tarif réduit à cinquante pour cent. parce que xalaat nañ ñi néew doole mais aussi aménagé nañu en euh, bus yi ak euh, surtout li euh, nga xam ne mooy station yi de sorte que ñi nga xam ne dañu nekk des personnes à mobilité réduite prévoir nañ leen te loolu dafa nekk lu am solo di wax ni projet bu ni mel ñun ñoo ko war a sàmmal suñu bopp ci naka mooy ci saa yu ñuy doxal mbir waxuma sax BRT mais de façon globale ñuy xalaat intérêt général ñu mën a xalaat qualité yow miy jaay teg sa table di jaay mango wala gerte war nga xalaat qualité war nga xalaat cellinu li ngay jaay moo xam qualité de service moo xam qualité produit war nga xalaat cellin gi war nga xalaat sécurité bi war nga xalaat environnement bi gis nga yooyu bu ñu ko defee dina réglé problème yu bëree bëri dina wàññi ardoise médical bi waaye dina tax que ñun ñuy mën a am ay mbir yoo xam ne dina yàgg ndax dinañ ko sàmm ndax bis bi bu fekkente ne moomaluñ ko suñu bopp di dugg di fa am yenn comportement yi wala di gaare suñuy oto ci trajet wu BRT bi wala di traverser nu mu ñu neexee suivre ñu feuille ak yooyu mbir mi du sotti ay problème lay gën a jur maanaam saafara bu jur jàngoro lay doon projet bi nag yamul fii am na beneen bu ñuy lancé fii ak 30 mai incha allah nga xam ne euh, boobu euh, sur plus de 230 milliards euh, avec 14 lignes pratiquement mille bus à gaz yaakaar naa dina am lu mu joué waat am na yeneen aussi mooy les euh, euh, car ak bus de rabattement yi nga xam ne dina mën a permettre ñenn ñi di mën a jugee ci yenn zones yi xaw ruq ñëw fekk si trajet wu BRT bi mais waaw euh, njëkk yi yaakaar naa ñoom liggéey nañ ci ci xarañteef pour xool loo xam ne dina mën a permettre xëy na transport public duñ ci wut xaalis mais dañuy fexe ba entretien bi ñu man koo assurer ak personnel bi moo tax ñu def li liñ ci mën ci tarif boobu am na lu ci exploitant bi moom am na lu ci euh, état du Sénégal moom loolu dafa am solo mais beneen bi aussi mooy transfert de compétence bi am na maanaam xarala gi ak xarañteef gi ñu ngi koy jàngal suñu ay ndaw suñu ay naataango sénégalais ba nga xam ne fii ak ay at yu néew ñun dinañ mën a defal suñu bopp lépp loolu moo ci am solo